mu yëkkati kàddu yu ñàkk teggin jëmee ko ci ki nga xamante ne kii mooy suñu yaakaar tey mooy suñu yaakaar ëllëg ndax kenn ku nekk xam na ne Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim mooy Cheikh Ibrahim Niass te koo xamante ne kii Cheikh Ibrahim ñas nga ñun ñu nekk ay doomam nekk ay taalibeem du ñu nangu kenn ci Sénégal di ko teg benn baat boo xamante ne bii wax dëgg yàlla baat bu safaanoo ak defaral wax ko wax ju rafet la kaddu yi gune gu xamadi googu yëkkati weesuwul di wax ne ki nga xamante ne bi mooy suñu xalifa bi dafay jóge fii dina fay dem ci Soudan régler ji Soudan te mënut a régler sax réewam kon moom dafa xamut moo tax mu waxee noonu xamadeem googu nag mu yëkkati moo tax ñun ñëpp ñu dajaloo fi ci ci ndigalu ki nga xamante ne kii mooy président Ansaaru Diin ak ñun ñëpp ñu waxtaanee ko ak doomi xalifa bi ak ñëpp ñu dajaloo ñu ne nañ def point de presse bi ngir lan ngir fexe ba suba ak jàmm képp koo xamante ne kii taalibe bàyyi nga wala koo xamante ne kii yow wóor na la Cheikh Ibrahima Niass ne ci sa xol bi nga ñëw jëppal fii ci kër Baye nga xamante Baye ko sancal boppam fii nga ñuy defee point de presse bi fii lañuy ñuy defee xadratul juma ñaan yàlla ñaan yàlla waaye xool naka lañuy ñuy jëflante ak moom lii nag buñ koy wax réew mi mu ngi bëgg a doy waar parce que laal pas-pasu nit wóorut ndax am na gune yu jóg ñu ngi koy wër bu ci bakkan rotee moo ko def ñaanuñ ko yàlla nag waaye laal Cheikh Ibrahima moom dootuñ ko nangul kenn kenn nag kenn koo xamante ne kii di nga laal njabootu baay gi wala nga laal xalifa bi wala nga laal njabootu euh, Serigne Aliou gi ñu koy seetaan duñ ko nangulati kenn loolu moom désormais c'est fini du homme politique du homme du du du homme d'état du kenn koo xamante ne may nañ la loolu ndaxte nag bu ñu gisee oyofuk sëriñ bi tax ñu yaakaar ne yaa ngi dégg dañu dañuy def leen neex bu ñu ñëwee sax ca kaw la ñuy toog ndax oyofu sëriñ bi rek ak mbaaxam ak tabeem ak yaatoom loolu nag dootuñu nangu ku ko foye c'est fini ñun nag jël nañ ci ay décisions yoo xamante ni yii. maintenant am na comité buñ tëral képp koo xamante ne bii defati nga nu lu mel koo mën a doon comité boobu dinañ jóg jëflante ko yow directement ñu ngi interpellé nag directement le chef de l'État le président de la République am na loo xam ne duñ ko nangu ñu ngi interpellé le ministre de l'Intérieur mais ñu ngi interpellé le procureur mu auto saisiru yónnee nañ ko plainte yónnee nañ ko ko par WhatsApp yónnee nañ ko ko yaa ngi dégg yónnee nañ ko ko écrit boo xamante ne bi jot na ci ba pare ñu ngi koy demandé mu auto saisir immédiatement parce que kenn ku ne boo dégloo xale bi xamadeem gi mu def foog ñu réglé ko euh, li ci des nag mooy 2 za TV nga xam ne ay dara mooy responsable bi moom la ñuy waxal c'est sa responsabilité moom moo ubbi site bi may ay nit ñu toog foofu ñuy wax woo naa ko suba ba léegi xam na ma xam naa ko wuyuwul li ma ci gën a métti lu mooy moom moo waroon a jóg dem ci sitam toogal boppam démentir xale bi wax ne li mu def du dëgg du yoon immédiatement mu arrêté émission boobu il ne l'a pas donc loolu ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy naqaru ñu ngi demandé nag taalibe bàyyi yëpp léegi nag moom comme réew mi dafa demee lu neex waayu def ñun am nañ yar am nañ teggin ñooy fajal nag léegi suñu bopp wax ji jeex na ñooy fajal suñu bopp waaw parce que am na kër diine yoo xam ne kenn ñemewu leen kenn ñemewu leen wax dara fii ci réew mi ñoo ñu amee fulla ak fayda ju toll ni aar seen i yëf ba kenn mënu leen a laal kenn ñemewu leen laal noonu lañu amee fulla ak fayda te kenn ku ne xam na ne Cheikh Ibrahima Niass a plus de 400 millions de talibés dans ce monde nag loolu nag moo tax ñu yëkkati kàddu yi vraiment am méttit lu am naqar moo tax ñu waxee ko nii ñu ko waxee ñu ngi yëkkati kàddu yi nag di ko jox ki nga xamante ni mooy Modou Thiam moom mu mottali ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ku ñuy wax kona man damaa xamul sax luy kona kon ah julit la wala du julit il faut ñu xam ban la bokk bu fekkee du julit mu ngi tooñ bu dee julit la mu ngi toj parce que olof yi dañ ne ku attewul dinga nga artu te konaa mi nag daa ñu atte ak moom par aw bee daa ñu ndax lu man man nañ ko fu mu yegg yegg nañ fu ko ëpp du ñu moromam ci lenn waaye nag yar nañ ñu yar goo xam ne dañ ñoo artu ñun tam nañu def leen ndànk ndax ndigal ba tax songi ko xale yaa ngi koy bëgg songi songi baraam sekk mi bokk nañ ci ñi leen téye te mu ngi ko jëlee ci kilifa gi mu Cheikh Mouhamadou Mahi ñun nag li bàyyi wax sànq réew mi bu amee crise d'autorité ñun ay autorité la ñu suñu bàyyi Cheikh Mouhamadou Mahi autorité la article quatre-vingt bi ñuy utiliser ci président dañ ko war a utiliser ci suñuy kilifa yi ku ci waxati dara ci ñoom dañ laa war a jëli indi la konaa nag buñ ko jëliwul ñun daañ ko jëli te li ñuy wax xam nañ ko te ragaluñu te ku ñu xam-xam ne ragaluñu ku ñu xam-xam ne Baye Niass musta ragal du nguur du sëriñ moom rek moo fi taxaw ne bu leen nangu ku leen gaw ci baat di leen xëcc du ngeen ay dof benn sëriñ du ko ay taalibe fii ci Sénégal na na na na Kona xam nag mook tele boobu mu mu seqal te ñu ne Ahmed Aïdara moo ko moom daañu jëflante ak ñoom te lii buñ bu jàllee ci keneen lañ jëm ci beneen tarixa lañ jëm te réew mi réewu lislaam la réew diine la réew këru tarixa yi la ñun ñoo ko moom këru diine yi ñoo réew mi te ku tudd Baye tudd international ku tudd Mouhamadul Mahi tudd international parce que ku dem ba Darfour di régler foofu nga ñëw ne mënut a régler Sénégal mais ba mais bàyyam moo daan régler Sénégal bàyyam moo daan régler Sénégal kon kay Mouhamadul Mahi moom mën naa régler àdduna bi waaw ku ku sa bàyyi en quatre sa plus de quatre cent millions de talibés partout dans le monde nga ne mënut a régler réew mu nekk moins de dix-sept millions mais indiscipline boobu nañ ko teg fële kon nag kon nag daañu jëflante ak moom. lii may wax dama bëgg yéen journalistes yi ngeen jàllale ko ba àdduna yëpp yëg ko presse national ak international bi war nañoo dégg lii ndax bu nekkutoon li mu jam presse international bi waxoon naa baraam nañu fexe ñu teew fii konaa nag konaa nag bu dee dafa reew wala mu am baay ju reew dana xam ne ñun suñ baay dafa yaru waaye dañ ko war na ñun ñoo ko dàq réew mi nag réew mi nag réew mi nag dañ fa nekk ci ay loxo yu baax la nekkoon ci suñu kilifa donc ñun duñ nangu mu yàqu kuy politique na nga dem politique mais bu ci boole suñu kër diine yi te il est temps nag il est temps que nag ñun sénégalais yi ñu jël suñu destin en mais parce que réew maa ngi bëgg a sànku hmm. eh réew maa ngi bëgg a sànku ah bu ku nekk toogee sa kër di wax sama yoon nekku ci dañuy taal sama kër dañuy taal nangam. mais kuñ taal sa kër nga taal kër keneen balaa loolu di am ñun ñu ñëpp ñu ñëpp ñu fagaru mais Medina Baye Niass moom kenn dootu ko tudd Kona moom xaw ma fu mu nekk teggin moo tax may waxee nii sax waaye Kona li ma ko bëgg a wax dëgg bu mi ko rey feyee laa koy wax na xam ne ñoo ko gën bàyyi suñu bàyyi Cheikh Mouhamadul yi Ibrahima Niass moo gën bàyyi Kona moo gën bàyyi bàyyi Kona te kona ah, na xam ne am na affaire ak ñu toogoon seen ruq rek di jaamu yàlla léegi am na affaire ak ñooñu nag te ñooñu àdduna yabuñu leen ko àdduna yabut benn xale bu tekkiwul dara ñu naan xaw ma loo doonoon mënoo ñoo yeb kona ah, du ñu yeb ah. sit bi nga xam ne moo am ay xale yu ndaw yu jigéen yu toog kona di wax ñu di ko reetaan ñooñu dinañ ko jëflante ak ñoom te dootuñu ko defati parce que réew mi il faut ñu xam lan mooy journaliste ak lan mooy kuy foog média lu ñuy foyee média dafay defar dafay yàq te luy defar moo gën luy yàq jigéen ñooñu toogoon foofu nag di ree ko naa daañu xam ne ñoom tamit du lépp la ñuy ree man li ma amoon pour wax président mooy wane sama naqar ak naqaru taalibe yi taalibe nag mer nañu mer nañu te ñàkkuñu fayda ñàkkuñu fayda ragaluñu nguur ragaluñu opposition politique yàgg na ci réew waaye politique u saaga ay kilifa amu fi te fii kenn dootu fi saaga suñu kilifa kilifa jàmbur sax dootuñu nangu ko saaga duñu nangu sax ko saaga ndax fii diine jëpp benn la li nekk Touba moo nekk Medina moo nekk Tivaouane moo nekk feneen ñun ñi ñëpp am nañu ay xarit ci yeneen kër yi léeg sax ñu dem ba yaakaar na ñun duñu ci kër yeneen lañ bokk parce que lépp benn la mais Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass. di yaakaaru Medina Baye taxaw taxawaayu Baye Niass ci kaw suuf dootuñu nangu ko ko tudd. ku ko laalati da nga ñu laal de wala di nga jaar suñ kaw te jaral nañu nag. ñu dem ci barzaq. moo ñu gënal suñ bakkan yi ah. te loolu il faut ñu xam ko il faut ñu xam ko il faut que booy bi xam ne Mahi Ibrahima Niass moo gën suñ bakkan yi. yéen na ngeen ko wax na ngeen ko ci àdduna man kenn xamuma ci politique mais politiciens yi maag ñoom ba dañuy jëflante yebu ñu ma yebu ñu ma ñii di calli calli ci réew mi nii bu ma toogee ñoom si le terrain yebu ñu ma man kenn yebu ko ba yeb sama bàyyi nag sama bàyyi ku leen yeb ma waaye yow gis nga. ñi ngi waxee ci mboolem taalibe bàyyi Niass yi nga xam ne ñi ngi nekk fii ci Dakar te sunu ñaari mag. wax ko léegi mu nekk Cheikh Ibrahima Niass mii nekk sama ndeyjoor ak Modou Thiam mii bëgg bàyyi nekk sama càmmooy ñun sunu bëgg-bëgg mooy ne Cheikh Mouhamadul Mahi xaadimul umma kenn dootu ko laalati ci nii ak ci na loolu amut sax maslaha kilifa gi nga xam ne yàlla lu baax rek lay def bésu tey bii mu nekk vingt cinq mai daaw ci la jubale mu doon jubale ci Soudan bésu tey bii la woon daaw yàlla may ñi ñi fekkee ko kon nag kenn koo xamante ni bu fekkee ne sax moom rus nañ ko ba ne nañ bàyyi xeex bi ba mu ñibbi mais na fexe kooku noonu kii kii wax moom na fexe moom keneen rus ko moom ba bàyyi xeex ba ñibbi te bëgg nañ ñi leen di wax ne leen yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog ci plateau yi di wax balaa ngeen di wax da leen xam li ngeen di wax lan la yaa war a wax yaa ñi saf bu mu la tax a wax loo xamul ndax dafa am loo xam ne xamuñ ko xamuñ li xew Soudan xamuñ li sëriñ bi rek la ji woon Soudan fii ci mim réew nag mënuñoo nangu ay politiciens taxaw ci réew mi nga bugg ne yow politiciens yooyu heure bu nekk yaa ngi leen di utal ñoom fu ñu bokk Adji Sarr nee na taalibe Cheikh Ibrahima Niass la kenn mënu ci tus bu waxoon taalibe keneen la tamit kenn mënu ci dara bu waxoon ne gëw ma leneen tim kenn mënu ci dara seen coow yi ñu nekk nag suñ yoon nekku ci waaye suñu sëriñ moom kenn dootu ko laalati lépp lu ñuy war ci yoon def nañ ko plainte nañ yónnee nañ ko procureur de la république directement konaa moom xooma konaa xooma nan ñun liñ man ci zahir ak ci baatin yëpp dinañ ko jëf ci kawam te nag dafa xamut kan mooy Cheikh Ibrahima Niass laal na laa làkkee su fekkee am na ay mbokk na ko mbokkam yi wax na dénkaane danaa wax fàttali ko benn affaire fii la amee woon ci dakaar ci benn télévision fii benn politicien toogoon ci di wax Cheikh Ibrahima Niass lu tegginuwut dafa xëy rek néew yi ba dee konaa nag yow ñu ngi lay xaar foofu noonu ànd ak bëgguñ loolu kooku dem yàlla ko yàlla yëram su ma ko waxee benn benn rapport lay wax sax benn rapport boo xam ne fii la nekkoon ci benn télévision di wax di jubali ci Cheikh Ibrahima Niass loo xam ne nii du noonu am na ñoo xam ne nekkuñ fii ñu ngi bitim réew ñu ngi ko téel ay dog yoo xam ne nii nii yal na ko yàlla yërëm rek lañ mën a wax ak moom. ñun nag suñ bëgg-bëgg ak liñ bëgg di ko wax mooy ne ne état jër responsabilité am ci lii nii démb ba léegi nag taalibe yi ñu ngi au gauche droite nañu danañ dem taal télé bi danañ dem lakk kër ñoom Kona. ma ne leen bu ngeen ko defee da ngeen ci boole ñoo xam ne bokkuñ ci ndax ñun sëriñ bi loolu la ñuy yare ñun tarbiyel lañ ñuy def yar ñi mais gis nga li ñuy jaay nii ci euh, biti ak ci mbedd mi ak wax yu tegginuwul ñëpp man ñun am nañ ko ndax yére bu weex la ak yére bu ñuul rek waaye ñun sëriñ bi moo ne nañ leen wekk suñu yére yu ñuul yële ñuy sol suñu yére yu weex yi moom mooy yar ak teggin incha allahu rabbi muy fii ci télévision ak ku mën di nekk ci mbedd ak foo mën di nekk dootuñ maye ci kenn muy laal Cheikh Ibrahima Niass te Cheikh Ibrahima Niass mooy Serigne Mahi dootuñ ko maye ci zahir dootuñ ko maye ci baatin bu laajee ñi fekk danañ fekk bu laajee ñi dal danañ dal waaye lépp lu ñu war liggéey moom ci baatin amul ku ñu ci mën a téye ba duñ ko liggéey soxlawuñ jéggalam ndax bii du premier fois mu koy def sëñ Mahi du moromam. du hmm. moromi kum yaakaar du moromi kenn. sëñ Mahi nit la koo xam ne nii dundam yëpp jàngale jàngale la ko def. nit koo xamante ni yow faale woo ginaar ak ceebu jën nga emale nit koo xamante ni lépp luñ ko jox ci alal daf koy seddale billahi wallahi tallahi ñiy wax yëpp dañoo xamul kan mooy Baye ñiy wax yëpp dañoo xamul kan mooy Cheikh Ibrahima Niass mais sëñ Mahi mooy kilifa goo xam ne sel ci àdduna bi bu ko neexoon mu ne weer wu dee ma am milliard fii ñu toog nii di wax nii xam nañ juróom ñaari chef d'état yoo xam ne ñu ngi ko envoyé invitation bugg mu ñëw seen réew mu toog fi mu toog danaa nettali rek dara foofu laay tëjee yàggul dara damaa toog di wax ak moom mu ne ma diw daf maa tabaxal kër goo xam ne ci dakaar waaye man du ma dëkk foofu man sama mbaar mii doy na ma ku mbaaram mi doy lan lañ koy tuumaale nañ bàyyi jàmbur na lan la turam moom turam moom ci plateau képp ko fa toog a ci wax da wax yàlla na fi yàgg te wér rek waaye lu dul loolu safaan moom képp ku ko ci waxati ci biir plateau boobu lañ lay fekk te nag ñi ngi wax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo amee télé yi ñu ngi leen di wax ne leen bépp émission buñ fa toogoon di wax naka sudul noonu ci ñoom wala ci seen waajur wala ci seen sëriñ wala ci njiiti réew mi fii ñu toog la ñuy dagg émission bi régler situation bi ba pare ñëwaat ci émission bi kon ñun xam nañ lan la ñuy liggéeyee ñoom kon nag na am loo xam ne nañ ci jël matuwaay sëriñ Mahi moom jeex na jeex na jeex na dootuñ ko mayeti kenn parce que ñun ñoo ko moom sëriñ Mahi suñu sëriñ Mahi la ku ko bëgg ñu bëgg la ku ko sànni leneen ñun amuñoo yow affaire ñun ku ko bañ rek amuñoo yow affaire waaw ak koo mën di nekk nag cër bi ñu doon waxee nag fi mu nekk nii cër bi moom dafay jeex sëñ bi lañ am muy politicien muy ñu nekk ci rajo yi di wax muy ñu nekk ci télé yi dootuñ mayati tim benn politicien mu ñëw ci wetu sëriñ bi lu ko neex mu wax lu ko neex di def ay waxal ak président sa copain la sëñ bi amul copain sëñ bi benn copain la am moom mooy yàlla lépp lu am yàlla la koy jox lépp lu ñàkk yàlla la koy laaj waaw fépp fu mu taxaw mos sa taxaw laajal boppam dara fépp fu mu taxaw askani Sénégal lay laajal fépp fu mu taxaw jaamu yàlla yi lay wax fépp fu mu taxaw taalibe Cheikh Ibrahima Niass lay wax kon message boobu lañ amoon lu ñuy jàllale konaa nag tooñ nag taalibe bàyyi ba ci kanam yàlla te ñi ngi oo nag suba fépp fu taalibe bàyyi man di nekk ci Sénégal ak muqaddam yëpp fu ñu mën di nekk nañ leen ñëw fii ña xadaraa kër Baye Niass ñun ñëpp nañ leen ñëw kër Baye Niass ña xadaraa fii suñ paree ñaan yàlla ki nga xam ne moo jugloo suñ xol yi ñaanal yàlla suñu sëriñ yàlla yàggal ko fi loolu te may ko wér ñaan yàlla ci réew mii yàlla def fi jàmm te gis ngeen Sénégal gii Sénégal yi jàmm lay nekk ba ilaa yow mi diin Sénégal gii képp ku ko bugg taal ñi ngi ñaan yàlla yàlla nga tàkk balaa ngay taal Sénégal ak ku mën di nekk nag Sénégal du tàkk ñun Sénégal lañ am Sénégal lañ bëgg Sénégal lañ yaakaar kiñ gën a fonk ci àdduna bi mooy Cheikh Ibrahima Niass Sénégal la nekk kon ñun Sénégal lañ am duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg bu ay nit jugee ne danañ taal Sénégal dana ay junney nit ñu jug na danañ fay Sénégal bu ay nit jugee ne danañ indi xay Sénégal dana am ay junney nit ñu jug ne danañ indi jàmm Sénégal Sénégal lañ am képp ku fi def dara ñi oola demal nga régler loolu noonu képp ku fi wax dara ñu woola demal nga régler loolu waaye Sénégal gii duñ nangu mu tàkk ñu ngi oo taalibe Baay yëpp nag ci ay dog yoo xam ne nañ ko def ñaan yàlla kona ak képp ku yaakaar kona ak képp ku kona yaakaar yàlla na ko yàlla xalaat digg bëccëg ndar kam loolu amul sax werante parce que ñun Cheikh Ibrahima Niass lañ bëgg ah sëñ Mahi mooy Baay sëñ Mahi mooy Baay sëñ Mahi mooy Baay ñu ngi jéggalu nag ñëpp di ñu ñaanal taalibe yëpp yàlla may leen jàmm defal leen tawfiix ñaan yàlla ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def naataange yàlla na yàlla def barke ajjuma suba daal bu kenn des na ñëpp ñëw fii kër Baye Niass ci jëppal ñu defee fi xadara muqaddam yi nag la ñuy njëkk jiital ci woote bi parce que ñoom ku leen laal seen taalibe yu jug tey nag ñun Baye Niass lañ laal Baye Niass lañ laal buñ laalee Baye Niass ñëppay jug ànd ak sax ki ki ñuy ki ñuy jugal jaruta jugal ndax benn xaywaan la xaywaan moom jarta jugal waaye nag da danañ ko wan ak moromam yi pare woon a jug pour laal Cheikh Ibrahim wala ne leen Cheikh Ibrahim Niass dootuñ ko laalati moom ba ilaa mi din ku toogati ci plateau di wax sëñ Mahi Niass yàlla na fi yàgg te wér rek ngay wax waaye amul leneen looy wax wasalaamaaleykum